bonsoir chers amee internet yéen mi safoo duñu bàyyi xel fii suñu people tv suñu people point net mbégte lañuy am ak contentement saa su ne di jàkkaarloo ak yéen kon nuñu koy defee rek tous les semaines dañuy ñëw jësi ki nga xamante moom mooy suñu bada borom kéemaan fas yéene waxtaanee lépp rek xamante ne actualité la bàyyi ko fii suñu réew euh, laata ñuy tàmbalee dañ koy bàyyi mu nuyoo sëñ bada ñu ngi lay nuyu waaw di wax ne salaamaaleykum salaamaaleykum kumba am ndey kumba amul ndey waa Sénégal waa diaspora bi rawatina ñi may suivre ci internet bi ñoom ñëpp ñi may topp maa ngi leen nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. sëñ Bada gannaaw ñun tamit euh, buñ la fayee ca nuyoo ñu ñu fas yéene doore li nga xamante moom mooy moom mooy Sénégal euh, doon football ak li xamante moom mooy Gambie yàlla def nag yàlla may ñu a euh, ci kaw Gambie sëñ Bada noo jàngatee match bu tey bi. waaw match bi di wax alhamdulilah rabil alamin dugg nañ ci bisimilah rahmaani rahiim génn nañ ci alhamdulilah rabil alamin ndax ñi waaye yàlla def na Sénégal moom moo leen gën équipe fuuf parce que nag yoroon ay xale yu bees tàq waaye damay wax ne il faut Sénégalais yi delloo seen xel tuuti parce que gis naa commentaire yeeg wax yu ñaaw yu ñu doon wax may wax ne jaru ko il faut ñu delloo si xel yi tey xalaat parce que bu ñu fàtte ne première heure na doon football te heure bi ñu doon football naaj bi dafa tàng loolu dafay joué boo xoolee boo yu bëri ci terrain bi yi nekk ci ci équipe bi ay ay nationalité nañ am donc loolu ñun sportif yi ñun xam nañ loolu. Mm-hmm. mais boo nekkul sportif doo mën a xam loolu. Mm-hmm. parce que naaj bu tàng trop nga ci di football. Mm-hmm. pour nga fournir li nga war a fournir dafay xaw a metti parce que bu loo loo def rek daanaka double lay doon day metti boo gisee même Sadio Mané pass yi ñu ko doon pass a pass yi du egg dafay obligé dem di ko récupérer yi. donc loolu lépp li ko waral mooy problème de temps. temps température bi moo waral loolu mais du problème de course wala dara peut-être Aliou Cissé fi ko mën a condamner tuuti mooy que ne peut-être kii di Pathé Cissé wala Nampali ñooñu peut-être waroon nañoo départ. ñu waroon départ parce que Abdou Diallo boo xoolee gisut gisut waaw ni mu ni mu fubalee tamit cinq 3 2 bi baax na parce que naaj bu tàng bi la. waaw peut bu ñu génnaatee ci bii comme génnan ci bii incha allah rabi àjjuma ak jàmm bu soobee yàlla bu soobee euh, incha allah mën na teg peut-être 4-4-2 euh, bi. Mm-hmm. ba tey comme ni nga xamee Sénégal mën na nekk mais nii nii moom. Mm-hmm. dañu amoon jafe-jafe trop. d' accord bu la ko waxee ak bu la ko waxul. Mm-hmm. d' accord mais aussi sëñ Bada dañoo gis ne euh, saay bu Sénégal di di football rek da ngay dégg sëriñ yi génn ku nekk naan man maa tax bii bi dugg maa bii bi dem nii xam nga. est-ce que jotul ni tamit sëriñ yi la ñu defoon atum deux mille vingt deux defaat tamit noonu toog jàpp seen ñaambur bàyyi nit ñi ak seeni xel supporter li nga xam ne moom mooy équipe nationale bi Sénégal. xam nga bi VAR xewee ba léegi boo xoolee loolu liggéey naa ci lu bëri dafa wàññeeku léegi ban sëriñ moo gën a ñemeti taxaw fii di wax naka su dul noonu sëriñ su ndaw si moo tax kilifa yi ci réew mi respecté wuñ yenn sëriñ parce que ñoom ñooy yàq deru sëriñ si mm. bu fekkoon dañoo mel ni sëñ Mara Niass wala Diop Xaas wala sëñ Babacar Si bu sëñ Cissé wala sëñ Babacar Sall jaaykatu leen jaaykatu sunu ko bu meloon ni ñooñu mm-hmm. kon dëkk bi day que ñooñu dañoo booleeg patak organisé duñu wax di def li mais ñu ndaw ñu bëgg bës ñi bëgg gis leen ma ah mu jaral leen lu nekk ñoo war a dal yem te xam ne man zanna xayrallah yuxri aw yadur fa zaaka fi daarin zukatin wa dur njëriñ ak lor ah euh, sun borom moo ko yor joxu ñaari salaamaaleykum xamuñu ko dañu yabaate dong dëgg la nga kantaangam ngi xeex gis naa ñu bari ñoo xamante ne nii ñu ngi may envoyé ay message ay lu nekk di wane ne am na ñu taxaw tepp pour hmm. di xeex équipe nationale pour ñu teel a toog ci premier tour yi. may wax ne mais tey euh, pour mu teel a toog bañ njëriñ la am. a parce que am na ñoo xam ne dañoo soxor am na ñoo xam ne tey bëgguñu président Macky Sall. bërki démb bi muy inauguré BRT da ngaa dégg kenn ku ci wax ku ci ne benn promotion wala booy di ko dagg di ko nangam et pourtant bu doon keneen la mu ñu fi liggéey BRT bi Sénégalais yi ñoo ko moom noonu la demee moo tax ñu soxoree leen ba lu nekk daf leen koy jaral mais dama leen di wax ne lu dul yàlla neen la ñaari salaamaaleykum munuñ munuñu ko ci ñoom parce que jour yi ngay gis dañu am ndey am baay am ay rak am ay frère ak lépp te bàyyiwun leen yàlla aussi mi leen bind bëgg na leen bàyyiwu leen kon bu yeboo ñu yem te xam ne seen i pexe incha allah rabi du jug parce que ñun tamit bàyyiwuñ noonu. Mhm. loolu laa am lu ma leen wax ci sénégalais yi. nañu yem ñaan yàlla fexe nekk benn ñun ñëpp. Mhm. ñu supporter Lions yi ñu indi ndab li. Mhm. Ah. d'accord sëñ Badara kàddu yooyu noonu euh, rafet na dañu duggas encore ci beneen ponk gis nañ ni coowal terrain Wally Ballago Seck ba tey euh, fayagul ndax gis nañ ki nga xamante ne ni moom mooy Barito ñëpp ràññee ko ki nga xamante moom mooy Sidi Diop. dafa génn def benn vidéo bu bu bu bu viral naan waa euh, terrain yooyu noonu ki nga xamante ne moom mooy euh, Omaro jënduñu ko. ba tax na borom terrain bi génn ñaawlu yooyu la kàddu yi nga xamante ne euh, Barito yëkkati na ko ndax nee na la Barito wax tegu ko fenn du dëgg du yoon nee na ba ko Barito di woo dane ko Matar Diop euh, Soubatel moom moo ñu yónni ñoom itamit dañoo bëgg a terrain comme nee na kooku amuloon benn droit di dem di filmer di def ay vidéo te yeggul ci moom mi nga xamante ne moom mooy jaay terrain yi ba tax na nee na moom mi euh, Barito bu delluwaatulee encore def li nga xamante ne moom mooy vidéo seetal mbir yi wax ni la mu wax tegu ko fenn dëgg du yoon yéen tey ngeen nekk suba teel di ànd ak ak ma suba teel bi ngeen déggee vidéo yooyu noonu génn. non euh, Barito ko waaye waxal tooñ ko. Barito du fenkat du soskat du tappalekat wàllum terrain euh, sunu people da ngeen fi ñëw toog moo waxoon leen ko fii ngeen laajoon ma ay laaj ma ne leen. Mhm. mbirum terrain man gëw ma ko parce que. kii di Mari Yacine moom mi nga xamante ne mooy seen président. Mhm. moo fi taxawoon fële ca jam ñaajo ne woon dina maye ay terrain ay moroomu waykatam ay nawleem. Mhm. ñoom ba ñoom jay laa génn taxu yow parce que ba léegi gisuñu teere dégguñu teere kenn newu leen kaay signé muy ñoom caat jay laa jasaaka ak yeneen gars yi ñu ñëpp maar yaasin waali balaa ko seek moo taxaw ne leen buñ génnee fii ma jox leen seeni teere jam ñaajo ci teere Ablaye fii nii ci teere Ablaye Wade te teere yoo doon ko koo may e, e, hectare la woon ba léegi gisuñu teere léegi nga man leen lii mbirum teere gëw ma ko leen laa gëm muy kene ne aadamoo génn na di leen wili pande di dal seen kaw parce que ñoom ñoo ngemboon aadamoo muy saaga Sidi Diop di saaga Pape Diouf ñuy kontaan di way aadamo di ko may xaalis di ko di di di di di ko goofale léegi nga tourné parce que yàlla moom léegi léegi lay fay bul bi dafa tourné seen kaw muy wëlbatiku fi mu toll di saaga waali di saaga ñoom Baye Zall ak ñoom ñëpp aadamo ku ne xam na jikkoom du nit ku baax léegi nga tey coow li ne kut jonn ñu bañ audio yi génn bëgg a fay coow loolu moo tax ñu souligner ay mbirum terrain kur kur kur xam na Omaro dem wuti ay terrain Bambilor mais ba mu wuti terrain heureusement eh, xam naa dafa yorul xaalis mais bu yoroon xaalis amaan dina ko parce que 10 millions lañ ko doon laaj. Mm-hmm. audio yaa ngi leen ko tegal mm-hmm. lépp ngeen dégg. 10 mm-hmm. millions lañ ko doon laaj ci terrain yi mujjul finaliser. donc jëndul terrain Omaro moo taxaw def vidéo ànd ak Ramatoulaye benn gel boo xam ne fa lay liggéey wane na fi mooy cité Papa Thion ñoom ñoo jënd terrain yi musicien bu ne may kër. ci dix millions kon loolu yéen wun maanaa léegi borom terrain bi jën na taxaw final final euh, ñu fayuñu maanaam jënd amul jaay amul moomu amuñu fa pàkk amuñu fa bornu amuñu fa dara jënduñu dara moo taxoon fi mu taxawoon doon vidéo te comme foofu ay terrain jàmbur la ñoo ñoo jugoon dem porté ji dem ci yoon parce que ñoom dañoo tiit ba jàpp ne seen terrain yooyu dañ koo jaay loolu la cas bi demee mais njënd amu fa njaay amu fa déglul ma audio bii nga xam ne Omaro moo ko doon waxanteeg kii di borom déglul Mm-hmm. daa fekk na paa a wax ak ñoom baa ko jege pap wax ak moom ba pare pap nangu ko. Mm-hmm. comme moom nag jot na koo nangu. Mm-hmm. te man dox naa ay tànki jàmm ba fexe. waali booleem kook njago euro directement ba njago euro ñëw fi bu gis que terrain bu fii may wax ak yow problème prix deux cent cinquante mille moo indi jafe-jafe yi. ndax njaga ne dix millions na fa la bu deux cent cinquante ndax terrain yi accessible mi ngi ci ko tali bi. xam na comme force na ne la deux millions cinq cent. Mhm. gis na ne gars yi avancé wuñu ñu ngi toog di ko déglu ngir bëgg mu bàyyi loxoom. mu mhm. profité def sunu noonu yee jàpp ne bu ko defee ñun daf ñu yàqal te xamul ñoom yàq mun ñoo yàqal dañuy defaral. Mhm. fii laa bëgg mu leer. parce que dégg nga fii laa bëgg mu leer Omaro nee na. dañu juboo ci di dañ taxaw dix millions mais deux cent cinquante mille moo leen différence parce que Omaro nee gisee terrain yi moom da ko wax Mar Yacine Mar Yacine boole koog Ndiaga Euro Ndiaga Euro dawal oto ñëw ba ci terrain yi waxaaleeg waa ji mais waa ji nanguwuut a wàññi deux cent cinquante mille mooy seen problème Mar Yacine mi nga xam ne dafa mën a maye tabe deux cent cinquante moo tax jëlul terrain yi léegi Omaro nee na waa ji ci boppam moom moom moom la tax man leen Pape Mbaye jubut boobu sol bàyyi laat bi ma sol comme mu mel dama ni man wax maa ko wax jubut dama lay jugut xam nga la fa ma ko teg Omaro dèjà wax na ko waa ji. Mhm. moom mi jaay terrain yi moom moo demaat ci ñoom maxu suba teel moom moo dem ci booy yooyu ñoom barito moo wër seen contact lijjanti leen woo leen ne leen farmarin yi comme xam na te dañuy sow ñoom dañuy dañuy xëcconte mu ne leen kat terrain yi gars yi ko bëgg ma jaay leen ko gaaw donc vente aux enchères la bëggoon pour ñële fay prix bu gën a mag vente aux enchères pour fay prix bu gën a mag mhm. yaa may lu gën gaaw loolu loon lu gën a bu gën gaaw mooy nit ñi léegi xam nga dañoo gorewut moom lu njiit njaaj moom la Pape moom d'accord comme euh, euh, comme sëñ bu ma la comme si que ni mais Omaro jëndewul dem ñëwul parcelle ñëwul Dakar dama ne déedéet dama ne parce que booy hmm. mënu ñoo expliquer mais lii dafa leer terrain borom terrain bi day duul parce que lii Omaro wax non man lii Omaro wax laa day day duul li mu bëggoon moom moom yàllaa ko yàlla moo xaw suturaam parce que moom li mu bëggoon mooy kene moom vente aux enchères boobu la bëggoon hmm. parce que moom moo siiwal mbir mi hmm. booy xamuñu fuy Bambilor mënuñoo tëb tëb dem fa te xamuñ amuñu benn source source bi dëgg-dëgg moom mooma la moom mi jaay moom mi bëggoon a jaay teene ñoom Omaro moo moo dem ci ñee leen ko yëg leen ko pour ñooñu bëggoon ñooñu noonu comme dégg na maxu subateel borom doole la bu ko defee bu waa maxu subateel jënd ko mais maxu subateel moom mag loolu maxu fii mënta fay moom muy ñëw waaw mais li ngay wax ni nga ne tey looloo am euh, euh, parce ku nekk gis na ni moom euh, ba fa suñu ay ngoo la demee dafa woo ki nga xamante ne ni moom mooy barito boo auditeur la di waxal ak moom ne ko wax tegoo ko fenn waxoo dëgg te damaa bëgg a defaat encore li nga xamante ne moom mooy vidéo taxaw fi nga taxawoon jaaraat tamit fépp foo xamante jaaroon nga fa wax ni li ngay wax ni tegoo ko fenn du dëgg du yoon ba tax na moom bari ci boppam nangu ni la mu def du dëgg du yoon. kooku moom barito appel bi en a ñëpp barito la engagé mais dinaa la wax benn affaire bu nulul ñaari salaamaaleykum barito dafa rëy làmmiñ di wax rek moom waa ji si boppam ñaari salaamaaleykum lu ko baritoo too parce que bu dee tooñ moom moo tooñar moom moo njëkk a tooñ moo tooñar bi parce que moom moo woo appel direct def ko dugal ko ci biir ligne bi te loolu rek déformation la kon nañu may jàmm moom li mu bëggoon ay pexeem suñu borom moo ko weer parce que mënoo ne yow is bu nga sol sa bàyyi laal ba pare bëgg a bëgg a dóor loolu mënta nekk du jàll d'accord lii lii mooy coow li mhm, mhm. mais jënd terrain moom amu fa. mais yéen tey seen tamit yi ngeen voilà Maar Yacine jëndu terrain terrain moom amu fa. Omaro jëndu terrain Maar Yacine jëndu terrain waxaale leen déggoo. Maxu tamit jëndu fa terrain. waaw kenn jënd. d'accord non Maxu moom euh, mais tey aussi tey sëñ Bada est-ce sa euh, yenn yi xale tamit di def est que du tem ba bëgg a yàqal ki nga xamante ne ni moom mooy Maxu euh, suba teel wala yàqal tamit ki nga xamante ne moom mooy Sidi Diop. déedéet mu leen yàqal ñoom ñi ngi seen liggéey di liggéey concentré wu ñoom duñ wax wax bu ñaaw kenn déggu leen ñuy xasante wala ñuy wax ñoom ñooy tooñ ñoom moro faramarin ñoom ñooy tooñ ñoom ñoo sikk luñ ji njaaj ñoom la boobu ba léegi ba mu tàmm coow li mu tàmbalee ba léegi ñoom la biir dem ñoom ak aadam la tey ñoom ak waa Bambilor la ñun coow li seen su yoonu maxu suba te nekk yoonu si ba léegi déggu leen ñu ngaa te duñ ci mës a parce que ñooñu ay responsable na dugguñ ci yooyu dem di jënd terrain di wane man faramarin yee Armand Ndiaye may nañ ko terrain Amady Badiane may mais yow booy may Armand Ndiaye terrain yow bàmmeel nga leen bëgg a yóbbu man loolu ma jaaxal di balaa Ballago Seck nan la mën a dëkkee Ndakaaru yor këram gu baax tama ko ba mu jekk def ko ay immeuble immeuble def ci lépp léegi yow nga bëgg jël say musiciens yóbbu leen ba Bambilor. waaw mais mais mais c'est que aussi. ba Bambilor c'est honteux. Euh, euh, sëñ de non Dakar ku yor Dakar Dakar ku yor sa xaay jënd Dakar dama ne dama ne Dakar. Dakar dama ne. terrain terrain yoo xam ne ne hectares yi xaw ma ñaata la dix millions la. ci trente terrain. Mhm. loolu terrain eh, ñaata la boo ko diviser. boo ko diviser loolu ñaata la loolu lay may ay terrain trois cent mille tax ñuy rëy làmm taxaw ci télé bi di wax te lépp ay ay duul la a ah, dara amu ci du dëgg. d'accord mais quand même buñ buñ yab nit ñi quoi ñi ñu fonto kàddu yooyu noonu eh, defe naa ni leer na naa ñi bu ñu tuddee dañuy dem ci coowal Suwaybu ak Waly Balago Seck ba tey ku nekk gis na ni keroog eh, Suwaybu dafa demoon fi nga xamante moom mooy si soirée Waly Balago Seck eh, ba tax na ba muy baatare Waly ba mu ko baatare pare Waly dana ko damaa bëgg sama musicien yi ku ci nekk nga jox leen sang moom Suwaybu lànk ne du leen jox ba naka noonee Waly woo benn xaritam kooku yëg sur scène teral ñi nga xamante ñoom ñooy ay musicien Waly Seck ba tax na ñu bëri ne Waly léegi daa daa commencé changé suwee bu ñëpp ne warul woon def li mu def parce que bu fekkente ne moom wanewu moom moo ko fa taxoon woon a indi pour battre Wally comme te la moo tax nangu tamay ay musicien Wally Seck. <laughs> waaw d' accord foofu kay. Hmm. suweebu bu fa ñëwee wanewu moo tax. yéeg kaw pujum Wally Seck Wally Seck mariage di la way ak ak pujum bu a doon. Hmm. wanewu moo tax parce que showbiz la. dafay wanewu pour nit ñi xam ko pour mu mën a jaay liggéey liggéey yëpp. Ah, parce que xaalis boobu waaw mais dama xaalis boobu muy mayeel pour loolu la publicité la ça fait de la publicité. mais dama ne. maye par la force amul fenn. Mhm. te it maa ngi sant di ci remercier parce que démb sooy bu woo naa ko jot naa ko appel. maa ngi koy remercier ci mat gi mu mat. am fulla gi mu am fulla ba kenn mënu ko tiiñal. waaw mat gi mat mooy que ne euh, tey jii bu fekkoon manqué la tey jii li ko ko mariage ndoor woo koy wuyu. da yëkkati cent mille cent mille maye ba pare bu paree daal waye de mais son bi dafa am ay mbokk son bi dafa am ñaari jabar son bi dafa am ay doom am ay employé ñu ko neex li mu sentir lay jël cent millions tijji ko ba ñëpp gis ko cent millions ba ñëpp gis ko mu maye ci benn dix mille francs moom moom la concerné parce que pëjam boobu doo fa te may woo du benn yoon la mës a may ñaar Wally du ñaari yoon la ko mës a may yàgg naa may Mar Yacine Wally Ballago Seck moo tax ñu yéegal ko ci kaw pëjam boobu te ay moroomu nawleem yéegal ko moom kese mais dama ne maye du par force tey dama ne bu bëggee jënd ay terrain bambilor nekkul ci sooy bu la koy wutee parce que sooy bu tal leneen lu dul nekk fii di leen cotiser di leen joxeel pour ñuy jënd ay terrain tamit na am na dafa ñaaw c'est honte am na ñu ah. euh, euh, mooy lim ne mayel xaalis bi méta mais yow méta xaalis boobu xaalis Wally la méta méta Wally Seck lay barke arxuraanul karim xaalis boobu xaalisu Wally Seck la méta cent mille cent mille joxe billahi wallahi wa taalaahi xaalis bi mooy téye xaalisu Wally Seck xaalisu Mar la ay dóor la maanaam combine la dañ doon tiiñal sa waay mais dëgg-dëgg waa dama ne Mar Yacine Mar Yacine bu dee kàppo la dëggantaan dama ne dama ne bu la tey ji non dëgg dëgg ma ci la bokk dama ne loolu mu doon maye xaalisu maar yaasin la. nga teg yow loolu fan ana see preuve billaahi wallaahi nekk ci staff ñëpp xam nañ li baax li may wax. métal maye wu fa moom li mu maye xaalisu Wally Seck la mais comme xam na ne Wally Seck solo ndox diig na te dafay bugul gàcca moo tax mu defee loolu mais dama ne bu doon capot dëgg la tey am na foo xam ne bu ko fa defoon bu ko defoon tey ji ci Pape Diouf wala Youssou Ndour mu amee fa. illaahi barke yomal xiyam ak bar laa lay waatal mais bu doon ci Sidi Diop la sax. ñu ne kenn mayel cent mille mayel cent mille mayewul cent mille nga gis ñeneen ñu fàq ca làng ñëw taxaw maye cent mille cent mille parce que ay kapo ñoo fay toog mais pour wane la Wally Ballago Seck ay kapo waruñu ko ay kapo waruñu ko cent mille cent mille francs la doon yalwaan ci kaw podium bi mënu ko am xaalisam la obligé génn di ko jaxawaat. comme yow da ngaa jàpp ni Wally daal moom. day day def ay combine am daal. non combine la dañ doon yalwaan pour lu ñu jëndee terrain ay terrain lañ bëgg. mais 10 millions nañ bëggoon a fay. dañ ko calculer 100000 100000 100000 30 personnes. même bu defee sax lu positif yéen ngeen jëm koo jël dëpp ko. def déedéet déedéet mu def ñu lu ko déedéet déedéet. mais lépp lu ñu wax rek. coow li coow li ñoom ñoo ko waral dafa bew du moom. soin bu daal lu ko waay wax tooñ ko xaalisam la yor di ko moom day bu ko neexee wane ne dafa yor parce que parce que Wally Seck mii ci wàllu boppam yooyu lay def barki dem bi mu jugee Gàmbi ñëw dafa indaale benn oto ñu may ko fa benn oto boo xam te ni oto Gàmbi amul kayitu Sénégal oto bi dafa âgé bi mu ñëwee ne 400 millions la ko nee te c'est pas vrai oto bi da nga ko may amul kayit dafa âgé oto bu génnee jam ñaajo te amul permis dañ koy jàpp man téer laa mais lan la soo biis la day ngan nganu rek am na droit ngan nganu yoonu kenn sooy bu daal lu ko waay wax tooñ ko xaalisam la dix mille francs la ba muy dugg ci soirée bi leer na jënd na table te leer na mën a jëndul benn table parce que ñëwul dugg gant euh, gratuit te sooy bu buy dugg xanaa du jënd ticket dix mille wala cinq mille day jënd table ne ay moromam kon déjà apporter na foofu dara yaa may dégg lu ko waay wax tooñ ko sooy bu nga jot naa ko appel nee ko bis na ki tey gën la xam su bopp am ful la xam fi ngay teg sa tànk parce que ba feneen amee bu léegi kenn son ku ñàkk yàlla yàllaay buur ku am yàlla yàllaay buur boo demee ci Pape juuf mu teral la Sidi Diop ma ngay tëgg di toj muy neex Ibra naajoo gi fii te yow sango pare waali mënul la ñaari salaamaaleykum li nga doon waali defuloo ko li nga yor waali joxuloo ko. nit la ngay nit. ok mais tey sax pare tey lan moo tax nga bëgg a jël wàllu maye xaalisu suwee boobu bu ko dugal si jëndum teena ca bàmmeel waaw ah, mais parce que dañ doon yor waali mais dañ doon ket boo gisee kay ni mu demee cent mille cent aussi nga def benn live dal ci kaw benn euh, xale bu góor naam xale bu góor bi nee na moom dafa jënd terrain moom mhm. jël kayit bi may ko waali balaago sekk yow nga génn nakar lu geste le nga ne ko amul woon benn droit di def loolu noonu. waaw xam nga kooku. Mhm. sax ba tey ay dóor la seen dóori la bokk. ci dóori ba tey seen dóori la bokk pour wane ne terrain dix millions bi bi ñu bi ñu doon waxaale dan ko dan dan woy moo leen ko may loolu ay dóor la parce que maa ngi dégg ñu am na terrain yoo xam ne terrain yi cent millions la c'est pas vrai li Omaro wax moo gën a leer dix millions la mais waajooju bu demee tey ji bay am di ko maye man damaa wax leen ma ne waa ji déjà judduwut xale la jàng fi am fi xam-xam tekki fi loolu yombut ba mën a maye terrain bu terrain bu tol noonu waa ji moom xanaa amut amut ay mbokk wala moom amut jabar wala amut ay ay ay ay wala ay ay frère wala ay lëg bay jël terrain mariage di ko may mariage d' accord léegi yow foofu lan moo la ci métti. li ma ci métti mooy li ma ci metti mooy keneen keneen keneen moo ko may li ma ci métti mooy. bu fekkee da koo maye laa wax. Mm-hmm. bu fekkee da koo maye sàmba mm-hmm. alaar la. Mm-hmm. parce que sàmba alaar la li ma wax dafa leer. xale bu toll noonu kay li nga say besoin ëpp euh, war nga toll leneen lu nekk fi naan da ngay puux réew di maye ay amoo ko boo gisee waa ji rek booy bi da kii bu fekkee ne am na te man gëw ma ne ba léegi booy bi am na tere mais ay door la ñoom dañuy dóor rek dañuy dóor rek dañuy yëngal li ñuy wax dara amu ci du du dëgg chaque jour ma wax la ko boo demee ñëw fekk preuve bi tegu man dëgg rek laay wax sur le maradi peuple du wax dara caaxaan. maradi peuple waaw wax dara caaxaan man dëgg rek laay wax. d'accord mhm. Mhm. comme ni nga ko waxee Sidi Diop jamono ji mu ngi tëgg ay concert mhm. di ko feesal. a ah, comme ni ma ko waxee dama ne. janvier bi décembre bi yàlla yàlla àtt na parce que décembre ba décembre daj. feet ba feet jeex. xam nga ne tubaab ye ñu dàq feetu mm-hmm. ñoo ñu gën a xam yoon bi ëpp ñuy moyen mm-hmm. yàlla mi dara tawut mm-hmm. jël na feet yëpp euh, maanaam euh, kii di Papa juuf maxu suba teel waxoon naa leen moo téye bis baax yi nga xam ne Papa Diouf décembre bi yëpp Europe la nekkoon di ko di ko di ko ruq di ko dëb ba mel ni dege yaa muy dégg kii di Sidi ñu jox ko Ndakaaru muy lëmbe mel ni xar ci get fu neex jaar amul sens interdit ñi nga xam te ne amuñu programme amuñu bis bu baax ñu jox leen ay ñu dem ay Gambie ay Mauritanie ak Mbour ak Tamba ak Koumpentoum ak yooyu. ñoom ñoo amul laaj su baaxee. ah mais amuñu ko ah mais décembre ba décembre décembre kay. ñu jox ko décembre kay lépp suba teel jël ko Europe ñoo fa nekk Ndakaaru ñoo fi nekkoon kay la. xam nga ne moos décembre moom <laughs> passé ko si réew mën dara dàq ko. d'accord sëñ Bada lay ah, tàggatoo. li may tàggatoo mooy xanaa li ma doon laaj sànq te tontuwuma ci. Mm-hmm. mooy diggante a aw scouti mi ngay gis ci internet bi. waaw mais Bada. dafa maa mel cent mille francs. sa problème ak waroon koo fay dafa mel cent mille francs waroon koo fay. boobu bu léegi te fayu ko cent mille francs la ma ameel. mais mais fay nañ ko sànq. waaw moom laa lay wax def live. xale bu jigéen bee ko fay muy ku ñuy wax Rox. góoram moo ko fayal ku ñuy wax Papito xaritu yaam moom moo mm. ñëw. ci mm. live bi fekk ñu fa parce que xuloo bi dafa taxar naas ku nekk di dugg di wax. di saaga di wax lu wax yu ñaaw yu nekk ñi naan awus la ko jox awus woote ne dina ko joxeek <laughs> nangam ak nangam nan ko may tuuti waa nan ko xaar léegi nag moom li ñu jaaxul mooy comme li jaaxal ñee li ñu wax mooy comme moom def ne milliardaire la milliardaire boo xamante ne da ngay kale di am problème cent mille francs problème cinquante mille francs mënoo koo fay loolu aussi tamit dafa ñaaw c'est vrai c'est honte comme daal loolu waaw loolu rek la léegi daal coono daal jeex na parce que fay nan fayal nan fayal nan ko ko. waaw kii di ñuy wax xale bu jigéen ñuy wax rox dama dëkk Pikine moo ko fayal. léegi jeex na. ah jeex de parce que man moom fay nan ma jeex na amul benn problème. d'accord léegi looy tàggatoo. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax sunu people moom nii rek la seen liggéey rafet na seen taxawaay rafet na di nuyu waa Sénégal waa diaspora bi baax surtout rawatina waa diaspora bi au moins seen fay. maa ngi leen di ziar baax a baax Bamba Euh, frigo yu baax yi borom télé yu baax yi borom lu nekk lu baax li climatiseur ak lépp macha allah Bamba Electronics yàlla na yàlla defal jàmm. xéwal <laughs> merci. voilà cher amee internet yéen mi safo dañuy bàyyi xel fii ci suñu people mu nekkoon suñu bada borom kéemaan gis ngeen lépp rek loo xamante nee naa la actualité la woon amoon fii ci semaine bi moom lañ doon waxtaanee euh, dégg ngeen kàddu yi nga xamante yëkkati na ko ak audio yi nga xamante tamit génnewaat na ko teg ko ci nga xamante moom mooy fii si suñu ay écran di jaajëfal sama caméraman Chimère nee naa leen tey moom moo fi jaar di ñaanal aussi sama benn euh, caméraman bi càndum yàlla may ko tan mu wér ah ba mu dellu sa euh, parmi nous di félicité tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu lion di teranga ah naan leen félicitation ca kaw ca kanam na gën a continuer rek lawoon fa woon coupe bi moom la ñu bëggaat incha allah rabbi mu ñëwaat yàlla nañu ko yàlla may dinañ joxaat di daje ba suba incha allah rabbi di souhaiter aussi happy birthday ah, ah, Ndaw di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram nee naa yow loo dund doyul di baawaan ate santa ale bay bay